maaleykum wa rahmatullah euh, mbokki jullit yi communiqué bi mi ngi jóge ci daayira Cheikh Abdou Lahad Mbacké bi nekk ci réew bu Argentine te njiit la di sëñ Abdou Lahad Ndiaye jot na ndigal ci xalifa Cheikh Abdou Lahad Mbacké ci ndigalul sëriñ Mor sàll Sall jëwriñu fédération daayira Argentine sëñ Abdou Lahad Ndiaye ak ñim bokkal daayira sëriñ Abdou Lahad ci Argentine ñooy am mbégte di leen yëgal màggalu Serigne Abdou Lahad Mbacké gi édition 2024 ñu koy amal fii ci Argentine fa ñuy defee daayira mu yemoo ak le 2 mai di alxemes Serigne Abdou Lahad ak ñi mu àndal ci daayira bi ñoo ngi ci woo bépp jullit boo xam ni da nga nekk ci réew mi bàyyi wu ñu kenn mais ñi ngi ci woo mbooleem jàngkatu alxuraan yi ak itam jàngkatu xaside yi ñi koy duruus ak ñi koy yëkkati suñu mbokk Baay Faal yi itam ci wàllu sikar ku dégg communiqué bii nga jàppandi mooy sa woote ci bis bi li ko direction bi fi ñuy defee daayira la ci sitab bi ñu ngi ñaan kon képp koo xam ne rek teew nga fa buur bi lahu mi am fay yàlla na la fay ci barke Cheikh Ahmadou Bamba Xadim Rasoul ci barke Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mi ñuy màggalal